dal leen ak jàmm bu jenn ñu gën ko xam ci Dieyna fekki na yaayam ja ak jëkkëram ja di Bara Gueye borom Clean Oil ca prison loole ginnaaw bi nga xamante ne violé nañ état d'urgence ba daat ci célébrer seen mariage ca jamono joo xamante ni bépp rassemblement dañ koy tere fii ci réew mi ngir xeex jàngoro coronavirus gi bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yoo xamante ni ñu ko taataane ci site bi di Dakar Post waa section de recherche démb ci mercredi bi lañ ko dem fekk këram daat koy jàpp yóbbu foofee ca prison bu ñu sukkandikoo ci suñuy xibaar nag ki waral coow li ba tax ñu jàpp leen du kenn ku dut Maria Mané di yaayu xale bu jigéen bi ñu doon takk ndax moom moo amoon idée def cët bu rëy ci week bi ginnaaw arrestation Dieyna bi nag ñu ngi xamal ni ba léegi amoon na yeneen ñaari nit yuñ jàppoon ñoo xamante ni dañoo jàpp ni te woon nañ ca mariage boobule waaye nag ci ginnaaw bi lañ leen bàyyi rek ñu daal di ñibbi seeni kër bu ñu sukkandikoo ba léegi ci xibaar yiñ mujjee jot nag nit yiñ jot a jàpp ci mariage embouteillage boobule xewoon ci weekend bi foofee ca VDN ba fu soriwul dara hypermarché exclusive ñoom ñëpp tey jii ci alxamis yi lañ leen di présenter procureur de la république bokk na nag ca lañ leen di toppee moo di délinquance ak violé état d'urgence ci fàttali nag ñi jot teg loxo ñoo di Bara Gueye boroom Clean Oil mi doon takk soxna Maria Mané di yaayi xale bu jigéen biñ doon takk benn waay buñ naan Mansour Ndaw boroom baatre yi sénateur bi di ñaaxarañ loo VIP woykat bii di Ndeye Diouf ñu gën ko xam ci Ndeye Diouf mu Serigne Fallou Adja Diallo itamit bokk na ci di ab mannequin waaye nekk mag ci xale bu jigéen bi ñu doon takk la nouvelle mariée di naa mi nga xamante ni teg nañ ko lox démb ci mercredi gi